rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbal wara lak mahamid bi fasal ala allazi man iktafa bihi wasam buqyati himmati wa qasa matlabin muhammadin wasilati li arabi bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu sante suñ borom mawlana tabarak wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu jaay ba seexul xadim di ñaan suñ borom wa taala fayal nu ko noo ngi fas yéene dikkaat ak yéen ci sunu émission zaadu nisaa'il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati mu di émission boo xam ne émission bu biir la ñu di ko amale fii ci ëttub M-Media Group Nourou Darayni jataay bii passé wala jataay yi passé noo ngi doon wax ci diggante góor ak jigéen soxna ni mu war a toppee borom këram ci topp ay ndigalam waaye bay ay tereem waaye tam lenn ci sutura gi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala sutural na ko jigéen ndax jigéen dafa doon loo xam ne niñ koy faral di waxee dafa am ab cir lool ci lislaam kon ni nga xam ne noonu la ko alquran karim junje ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam junj ko jigéen nekk koo xam ne ko suñ borom teral la waaye ko suñ borom sutural la kon jigéen itam war a xam teraanga jooju ko suñ borom teral waaye xam sutural su nga xam ne moom la ko suñ borom sutural ba mu sàmm ko ci boppam waaye bañ koo xawwi ci mbedd mi comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi di jëfe waxul lan sutura nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa sutural jigéen ba indi ci misaal atte bi nga xam ne ñëw na ci jigéen bi nga xam ne dafa njaaloo ba wër ko duur ay yar yoon waxoon na ne sutura gu gu sutural jigéen moo tax jigéen ji da si roose am ndox ci barab ba mu tooy ñu ko ca barab boobee dóor ko dóor dóor caw yar yi nga xam ne moom lañ koy ca ay att boobu na ci jigéen rek la am ay ci jigéen ndax li ko waral la waral att boobu aju ci ci jigéen te aju ci xañ na man na ne secret la mën na ne du secret ndax atte la boo xam ne atte bu leer nañ ñi la la tax sabab soosu lu leer la loo xam ne surtout sutura rek la ci lislaam jublu ba tax mu àttewu góor noonee nga xam ne nga xam ne moo at moo tax mu àttewu jigéen àtte jigéen noonee mu teg jigéen loolee waaye nag àtte boobu des ko teg ci góor nga xam ne comme comme ñoom ñaar danoo bokkut foofu ñaar foofu dañ fee wuute ndax la mën a musal góor ca bee ci sutura musalut jigéen ci àtte boobu sutura loolu moo tax ñuy wax ne jigéen kon bu jaaree foofu ban nar koo teg ban nar koo jaarale ci at boobu foofu la jaarale moom ngir suturaal ko jigéen nag war a suturaal boppam moom itam xam sutura si ko suñ borom tabaaraka wa taala moo aw ca teg ca ab tànkam waaye nag bañ di xaw yi ci biir penc mi rawat na ci ëttu diine ji jigéen suñ boom tabaraka taala daf koo teral daf koo teral lool ba tax na jigéen kon nekk ko war a xam boppam ci ak génnam ci buy doxi ak buy waxi ak lépp loo xam ne rek moom daf koo génn aajowoo ko di wuti war ca ànd ak sutura waaye ànd jaak teggin waaye ànd jaak aw doxin boo xam ne doxin wu lislaam gërëm la waaye moytandiku ca doxin boo xam ne doxin wu lislaam xarab la li ëpp ci lenn ci jigéeni jamono ji nag sutura soosu nga xam ne moom la leen suñu borom sutural ñoom xamuñu ko wala buñ ko ko xamee tam ñoom euh, sàmmonte wu na ak moom ndax suñu borom sutural na leen waaye nag ñoom sutural nu seen bopp ba tax na lenn ci ñoom seeni waxin wala seeni doxin wala seeni colin lu lépp ak ñàkk sutura daf ci feeñ Euh, lislaam nag waxoon na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kersa mooy mbokkum diine saay boo amee kersa rek am nga diine boo ñàkkee kersa amoo diine ñi ci ñoom ci lenn ci soxna yi nag dox yi nu ñàkk kersa wax yi nu ñàkk kersa waaye jëf yi nu ñàkk kersa waaye sol yi nu ñàkk kersa comme ni nga xam ne lislaam dafa wax ne jigéen ak solom ñett sàrt la am na ñu ko tënk ci sàrt ñu ñett am na ñu ko tënk ci lu ëpp ñett wax ni jigéen say buy génn na sol lu yaatu mu sol lu xat waaye na sol lu lu uh, gudd bu mu sol lu gàtt waaye tam na sol lu uh, fatt bu mu sol lu yaraax léegi nag ñenn ci jigéen ñi dafa mel nii wax jooju moom ñoom safaan bi lañ ko dégge dañ ne bu mu xat ñoom dañ koy xatal dañ bu mu yaraax ñu koy yaraaxal dañ ne bu mu gàtt ñoom ñu koy gàttal loolu lépp nag safaanoo ak ni nga xam ne noonu la ko lislaam digle boole saak di dox doxin woo xam ne doxin wu ñàkk kersa la woo xam ne du doxinu nit ku yiw rawat na jigéen yoo xam ne da bëgg nekk da nga bëgg a doon ci ñiy tudde al mar'atu saalihatu ñàkk kersa ñàkk sutura gi nga xam ne moom la lenn ci jigéen ñi di doxe nga xam ne dem nañ ba góor ñi nga xam ne sax xañ na ñoom ñoo leen war na tane te te nu leen ñu jël jigéen ñooñee di ko jaaye si marchandise am na ci jigéen ñi ñoo xam ne boo amee sa marchandise bëgg mu jar ñoom ngay jël jaay ko marchandise mi am na ci jigéen ñoo xam ne boo amee sa euh, boo amee sa bagage bëgg eh, nit ñi dal di koy jël mu gaaw jeex ñoom ñooñu ngay jël jaay leen sa bagage yooyee am sax ñenn ci jigéen ñi ñoo xam ne ñoom ñooy wut seen marchandise ci boppam jël seen jëmm di ko jaayee marchandise moomee loolu lépp lenn lu ci nekk rek gis nga ko eh, jigéen dem ba dem ba jamono dem ba jigéen mën a eh, xaweeku mën a génne ay cëram génne ay yaram ay aw yaramam te lislaam waxoon ne jigéen de saay buy génn na mur aw yaramam ba mu daj ba mu des xarkanam bii ak càngoñ bi su ko mënul rekk di toog këram ndax alquran waxam na wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula waxoon naa ne aay bu bari waa nu ko tafsirkat yi firee waaye lenn ci ñoom mooy jigéen bu bëggee génn sañ naa génn waaye nag na génn ngir aajo waaye bu mu génn ngir kuuka réwu dox doxin yoo xam ne doxin yu jëmul fen la ah, wamsi li ajli xaajatin duna al ixtiyaal fa al ixtiyaalu jaalibun ila nakaal Sëriñ Tuubaa noonu la say buy génn na xaar ba aajo génn la nga génn waaye bu génn mukk di dox ngir kuuka wala doxi ngir gis ngir am ngir loo gis lu ñàkk xorom loo gis wala ngir ku la gis euh, lool bokk na ci li nga xam ne moo tax moo taxoon ñu wax ne jigéen bu mu génn waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati ula jigéen bu bu génn te mënta ñàkk sol lu xat su booba génn mu googee ñàkk génn moo ko gën jigéen bu dee génn te génnam googi mënta ñàkk sol lu yaraax ñàkk génn moo gën génnam googee jigéen bu dee génn te te mënta ñàkk a sol lu gàtt ñàkk génn moo gën génnam jigéen bu génn na sol lu gudd na sol lu yaatu na sol lu fatt mu xeeñ lenn loo xam ne bu robbee jàmbur bu góor wala mu romb ku man doon rek mu jigéen moo ko su lenn desit lu jublu loolu su booba waxar na fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula kon jigéen loolu bokk na ci teraanga ji nga xam ne suñu moom subhanahu wa taala defal na ko ci mu xam boppam waaye bañ a exposé boppam koo xam ne am nga sa marchandise bëgg koo jaay nga jël jigéen futti koo jaay ko marchandise ma dem ba di ko teg ci barab yoo xam ne xam nga ne xel barab yi boo fa tegoon boo fa tegoon jigéen ju sàmmonte ni ku diinam ni ku diinam bëggee bu fa nekkee bu fa nekkee dëgg dëgg dëgg dëgg na barab ba na na barab ba war a barab ba war a mel ci ña fay dikk du nu mel waaye nga jël jigéen ju ñàkk sutura du ñàkki teggin boo xam ne buy xaweeku la buy soppi ay cëram la teg ca jigéen ña bu góor ñi dikkee mooy wax ak ñoom wax woo xam ne waxin wu ñàkk teggin la waaye waxin wu ñàkk fayda la loolu lenn ci jigéen ñi nga xam ne dañuy jël seen bopp ñàkk a xam teraanga ci leen suñ boom teral wala suutural ci leen suñ boom tabaaraka wa taala suutural tax ñuy melokaan melokaan woowee góor ñi leen fay jël di leen tege tam ñàkk jox jigéen digg digg ab cëram wala ñàkk a xam digg digg wàccuwaay moo tax ñu jël jigéen jooje di ko jaayee seen marchandise kon jigéen war naa xam boppam war naa sàmm boppam du jaay boppam du nangu kenn ku jël di ko ku ko jël di jaayee marchandise bokk na ci itam ci waxoon nan waxoon nan ci jataay bii passé wala yi passé jigéen dafa war a topp borom këram waaye nag buñ ko waxee borom kër bi nga xam ne attaqi zil ola moo tax ñuy wax su booba jigéen googe moom dafa war a topp zahiran wa batinan ci lu mu xam ak lu mu xamul waaye du caagin ne dana wax rek ne jigéen dafa war a topp borom këram nga topp ko ci lépp lépp loo xam ne sax danga koy topp ci lu neexu suñu borom waxoon nañ ko ci xadis ba laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyati al-xaaliq amul benn bindee boo xam ne sañ nga koo topp ci loo xam ne neexut suñu borom mi nga xam ne moo bind bindee bi amul kenn genn jigéen gu am genn góor gu am sañ-sañ moo xam eh, borom kër la moo xam ab sëriñ la moo xam mag la wala baay la goo xam ne yow yilif na la ba am ci yow cër boo xam ne sañ na laa xottiloo sa war moo si diggante sa borom xam ne xel lii suñu borom ko xaraamal ci yow moo aw loola ca ba nga sañ ci saa topp déedéet laa taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq kon bu ñu waxee ne jigéen na topp boroom këram na xool li muy topp borom këram loolu loo xam ne lu gërëm la waxoon na ne tam ne bokk na ci màndargam ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala ci jigéen mooy borom këram gërëm ko su boobaa borom kër boobee tam du ki topp bànneexam topp bakkanam di jaamu bànneexam di jaamu bakkanam waaye mooy ki topp borom tabaaraka wa taala ba digg digg suñu borom gërëm ko kookee say bu la gërëmee rek mooy suñu borom gërëm na la waxoon nan ko yàlla laram bu mu loo ko jëfal am ci ngërëm boo ko joxee sax jënnub dërëm mu ful ko ay junni sax kon jigéen na topp borom këramam na jiital àqi boroom këram ci àq ñépp waaye nag boroom kër bi nga xam ne moo ragal digg digg yàlla nga xam ne du ko waxloo wala mu defloo ko lenn lu suñ borom kooki mooy attaqi zilon la waxoon nañ tam ne bokk na ci waxoon tam bokk na ci mandarga mandarga yi ngërëmul te jigéen mooy borom këram gërëm ko su ko borom këram gërëmee yàlla gërëm na ko waaye bu ko borom këram gërëmut yàlla du ko gërëm su boobaa nag wax nañ ko waxaat ko ak taqi zil ula boroom këram di ragal yàlla dëgg dëgg dëgg nga xam ne ku mu gërëm yàlla la gërëm daf la danga aw ci lu neex suñ ba mu gërëm la waaye ku mu xarab da ngaa nekk ci neexul suñu borom ba mu xarab la kooke moo tax ñuy wax waaye du jaageen ki nekk ci bakkanam ki nekk ci bakkanam topp bakkanam da def loolu xam ne lu neexul suñu borom la kooke moom mooy ndigalam loolee sax mooy ci yow nga aw ci ndigalam la ndax boo ca awee moom dana loru loraale la ndax la taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq kon buñ waxee loolu du caageen ne borom kër yëpp la ñu sañ a topp waaye borom kër bu nekk ci ak njub rek da ko war a topp ba jeex tàkk-tàkk ci la ci lu moo xam xam nga ko wala xamoo ko waaye borom kër bu nekkut ci aw jub itam yow soxna si su fekkee ne am nga matuk wala xamuk man koo jubanti da nga ko war da nga jubanti waaye nag bul ko topp ci la mu nekk rek wax ne danoo wax ni jigéen daa war a topp borom këram déedéet su boobaa yow moom dina loru da nga kon booy topp nit ki na nga ko xool ba xam ci digg digg digg la nga koy topp nekk si ni suñ bay jaxate waxoon yàlla day woote iblis di woote ku ci nekk wala ma ne sëriñ bi day woote iblis di woote ku ci nekk am na ngërëm ku mu jàpp yóbbu këram kee saytaane moo di këram kee aljana moo di këram ndax sëriñ bi day woote ki ko woote lu mooy yàlla yàlla moo gërëm seytaane day wootee ki ko wootlu mooy iblis iblis moo ko gërëm kenn ku ci nekk mu jàpp yóbbu këram sëriñ bi bu jàppee yóbbu këram mooy aljana iblis bu jàppee yóbbu këram këram mooy naari akar naa nag kuy woote ngir bëgg laa xéewalal wuy ji ko moo gën a yey di wuy ji kuy woote ngir bëgg laa alag di damu noonu la ko sëñ bay jaxate waxe woon ca woyam wa jigéen nag fi aljanam gën a gaawe waxoon na ne jihaad ni mu amee solo ni mu réyee te Sëriñ Tuubaa wax na ni jihaad yi jigéen mi ngi ci topp borom këram waxoon nañ ci ginnaaw bokk na ci bunt yi nga xam ne mën naa may jigéen mu dugg aljana am ca aljana yi gën a neex mooy mu topp borom këram bi suñu borom tabaaraka wa taala gërëm waaye nag bokk na ci bunt yi nga xam tam jigéen ji mën na ci am ak loru ci àddina ak alaxira rawat na sax alaxira mooy mu mooy borom këram bi nga xam ne ku suñu borom gërëm la am na ku mës a ñëw ci saxaaba yi ridwanullahi eh, taala alayhim ajmain di ko jàmbat di leen jàmbat soxnaam ñoom ñu ëpp ci ñoom wala ñu bari ci ñoom kenn ku ci nekk wax ko jàjj bi nga xam ne déggul la yonent bi sallallahu alayhi wa jàjj ko ci diggante soxna ak burum këram xam naa ngir bañ a guddal dañuy taxul foofu insha Allah taala jotaay yii di ñëw buñ dikkee ñëw ci ki nga xam ne dafa ñëwoon ci saxaabatul kiram wala lenn ci saxaabatul kiram di di leen jàmbat soxnaam ñoom ñoom kenn ci ku nekk ci ñoom nettali ko li mu déggoon ci jàjj bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàjj jigéen ji nekk ak borom këram te jeng lool ci ay doxalinam ak wax i waxinam ak i pas-pasam ak i ñaaw jëf insha allahu taala jataay yii ñëw jëm su amul suñu borom na dikk ci yooyu kon day taxawal foofu rek ñaan suñu borom defal ak digg ak topp ci wax Seexul asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lil mustafa xayri xalqi laahi mansilatu law wajjahat nahwa kullul wara xaaru raamal wara nayla fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi qaraaru